ndigal de waaw moo ci tegu waaye guddi gu toll nii bërëb bu toll nii jëmm ju toll nii jaaduwul woon sax ñuy xalaata jël kàddu waaye nag si waxuma la sa ndigal waaye sax xalaat doy nañu garanti xëy na nag balaa maa sori doon wax rek mbokk bi gënoon tudd léegi ñu ngi wax ni mu ngi tudd Boaïcha Buxtil ñëw na fii ci Tiwaawan fekkee na gàmmu gi incha allah ah lu fi jarati wax ndax mbooloo gi si ñëpp muuma benn baat rek a fi am muy sa bos kon nag si loo wax loo tëral loo bëgg nañ ko yëg rek ñii faale wuñu dara du président du sëri du malaaka sa jëmm ji rek lañ faale si sa jëmm ji rek lañ faale si ah coow ji bëri na comédie yi bëri na waaye comédie ko ko bëgg a seetaan dangay fekk chaîne buy teg comédie waaye si sa ëtt gi farata rek fi am te ci nga ñu yar ñii yëpp moom lañu xam ci nga leen yar moo tax ñoo raw ci réew mi kon nag si kàddu yi jarul gudd sa ñaan rek doy loo ñaan teg ñu ca yoon ba li ci des yëpp incha allah ci mbaaxu yàlla barke ñi mu am ñëpp dana mat incha allah kon nag ah ñu yamale fa kàddu gi ndax dañoo dañoo sañta bañ nag waaye yàlla xam na ni nga toogoon waxoo dara sax si ñu teg la bët ñëpp bég nañ kon nag wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

yaakaar naa jaru ma wax leen ko gis ngeen li mu daj waxuma sax ci leneen mais ba mu commencé di ma défendre booba kenn foogu ko waaw lu ne daj na ko lu ne tontu na ko waaw wa tabarakallahu waxoon ma ni dina ànd ak soxnaam pour ñëw gàmmu si waaw ñoo waroon ko tudd xam naa Cheikh

muy wax yu rafet yu ne sama anniversaire jot mu dem dajale talibé ya mu am ñu ñëw ci salam mu ni defal len ma qasida da ngeen way ca kaw ndax dama koy participer ci anniversaire Serigne mustapha waaw njaboot ye defal ko ko fa tabarakallah mu melni kon nag bokku na ci gor gor yi ñu teyewon ci bir prison bi mais am na gu nga xamni prison mënul changer dara ci mom waaw nee nañ xëy na ay liberté conditionnelle ak yu kenn xamul yooyu yëpp ay faux problème la dana jeexi ji waaw dana jeexi ji te ñi nga xam seen seeni arriéré la ñuy jéem a protéger ma di leen yëgal ni arriéré du fi am man ma la ko wax waaw waaw bi ci des itam mooy suñu mbokk nag Abou Bakrin Samb waaw dafa mel ni xale yaa ngi kontaan fan yi yëpp ndax télévision yi dañu jaaxle lu tax kenn waxu leen ñu ñu teg lu bokk ci Moustarchidine moo tax nag ñoom itam pour bañ a indil seen bopp tuuma ñooy jël wayu abu Bakrin Samb boobu rek kenn ku nekk di ko teg di ko tegaat waaw gis naa ko ci lu mat ñeenti télévision wax dëgg yàlla léegi nii rek lañ ko mujj di ko teg waaw ci UTV waaw ba tax na ko nag abu Bakr waaye nga sa yéene waaye nga sa cofeel waaw ma di lay yëgal niit njaboot gi bëgg nañ ci ba tabarakallahu partage nañ ko ñoom ñépp ci seen xaw ma nu ngeen koy tuddati hmm?

nga am na teraanga boo xam ne ku lu ji nga delloo ko teraanga ba du la wàññi dara waaw kon nag xam naa yëf yaa ngi noonu man xaw xaw ni woon sax ndekete mën naa def yooyu yooyu gaañ yi di def waaw léeg-léeg ñu dukkat dukkat dukkat ba jàkk ñu daal di tourné def def ñu ma ne ah loolu nag di moom <laughs> leneen la lu dul daara ji moom waaw ndeysaan mais c'est bien quand même c'est bien fa tabarakallahu rafet na te jaar na yoon waaw yàlla yàlla fay leen yàlla barkeelal leen te ngeen taxaw gis nga bi bi Kumba Gawla Seck waaye woyam boobu mu ma woy ñi sant si dafa am ñu ñu daje ni nañu wut pexe ci moom wut lu ko dal ba ñépp jàpp ni woy bi mu woy moo tax loolu dal ko waaw ma di lay yëgal ni nag yow Abu Bakri ñu ngi ci say tànk waaw ndax ñoom ku ma laal la bañ waaye nag inchaa allahu xam naa dinañu dem ci seen bàmmeel layoo ko sax nag waaw waaye am na lu nga xam ni mënuñu koo dindi ci àdduna bi mënuñu ko dindi ndax yàllaa ko def te yàlla lu mu dindiwul kenn du ko dindi waaw bu ko defee ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax surtout nag wax dëgg yàlla ah Cheikh Bara def di nit ku ma naw sama mbokk ma leen ndeysaan prof sëriñ Babacar daf may wax toujours ni ma sëriñ Moustapha man ko ma Cheikh Bara il est tellement pertinent Je ma discuter ak moom da ngay xam ne yi mu am mu ni ma Sénégal xamuñu nit waaw mu ne man tabaarakallahu discuter nag moom ay yoon il est tellement pertinent dama ko mujj a sopp sax ndax tabaarakallaahu xalaat yi muy génne waaw xam nga defa ne loolu nag ñi ko bokkal bare nañu ndax ñi fi bëgg dëgg moom kenn xamul nu ñu toll waaw kon nag xam naa baat yooyu la ñu bëggoon dolli ko rek am na nuyuwaat oustaz Alioune Sall maa ngi koy gis ndeysaan di ko yërëm ñu ngi koy buux ca burdu ba waaw di ko buux ndeysaan ak tàngaay ba te xamul yooyu ndeysaan man waa ah, baax na ci ndax boo demee safara boo fa jógee boo demee aljanna ci nga xamee aljanna lu mu toll waaw <laughs> mu bal maax ndeysaan nit ku baax waay oustaz Alioune Sall fa tabarakallah ñoom ñëpp man dama leen di admirer ndax seen franchise ak xamuñu lu dul dëgg waaw lu dul dëgg duñ ca duñ ca dugg waaw moo tax rek nag man ma admirer leen bëgg it fu ñu nekk rek ñu nekk fa ak ñoom incha allah kon nag loolu moo nekkoon kàddu yi ne ko ne jàng fatiha ku ne jàng salaatul fatiha ñu def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanalante waaye bala ñuy ñaan comme noonu ma koy waxee woon sama mbokk bopp bi man mii maa ko wax mu ñëw waaw mu di mbokk mi Alioune Dia xëy na ñu ca bari am na ñu ko miin mais am na ñu ko miinagul

ma am lu ma xalaat nag wax ko mu ñëw wuyu ma waaw dafa waroon dem Nations Unies sax pour rapport yu mu waroon déposé waaye mu ni comme soxla naa ko rek mu bàyyi yëpp na di ñëw Sénégal fekk ci gàmmu gi waaw moom Alioune Dia ma boole ko ak Cheikh Mbengue wa tabarakallahu mu di ko wettali ñoom imam Moussa Gueye ñoom imam Cheikh Niang waaw وتبارك الله اك عبد الوهاب صحو اه سما مبوكم بوكو مي نك الف جوب واه ما كاي توج بيس بو نك واه اي نيوان ناكو بولك ياي ان شاء الله واه تبارك الله مو ام تخواي دي كوردونير wàllu soxna si wàllu daayira ba la mu ca mën a def yëpp mu di ko def kon nag loolu dinaa ko wax nit ñi dégg ko wala ceeg sama mbokk waa Casamance yi moom moo nekk sama digganteeg ñoom di leen toppatoo di leen bàyyi xel ñoom it lu ñu soxla wala ñu am ko ci xalaat ñu wax ko ko mu wax ma ko mu mel ni tabaarakallahu Moussa dañu wax ni soxnaam dafa am doom bu góor mu tudde ma doom ba kon nag bay boo ngeen jàpp ni am ngeen benn moustarchid foofa ca Casamance waaw ndeysaan yenn yàlla def ko mag te yàlla barkeel ko barkeel ñi tolloog moom ñëpp nag te yàlla defal ñëpp sutura defal ñëpp tawfiq ñu jàng fatiha bi jàng salaatul fatiha ñu ñaanalante bu suba ngeen bal ma dama xaw a soj tey looloo tax sax ma dagg yëf yi waaw xëy na bu subaa nag ba ñu may ma ngeer tuuti waaw ma jël ngeer bi xam naa mën naa am dina xaw a dindi affaire yi tuuti bu ko defee nag ñu soog a waxtaan incha allah soxna yaa ngi ree rek waaw